جاءتكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين أيها الإخوة والأخوات مشاهدون الكرام معالي العلماء أصحاب السعادة أيها الأئمة المساجد والجوامع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki tëdd yi ñu jàkkar lool ñu ngi leen di nuyu di leen ziar fi ñu leen daan nuyoo ci seen chaîne bu mag bii di de Dabakh TV mardi bu jot ñu daje fi ak alimu al allaama al faham al murshid ayyadahu llahu wa nasrahu amara seen soppe suñu soppe alxaaji Cherif Ibrahima Aydara xafisahu llah wa raahu desuwaat nañu ak moom ànd ci mbégte loolu wax dëgg yàlla te moom na ñaari mbégte xam naa ne tey waxtaan dana neex ndax doon doon président bala may defar dara moom ba dugg foofu ma bàyyi ko mu nuyu soppe yi Chérif asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. yaa ngi rey rek al imaamul akbar <laughs> fadilatul imaam wal muqaddamul kabir wal ustaaz radio. <laughs> Oustaz Alioune Mbaye ñu ngi di la ziyaara barakala ñu ngi lay kontaane ci lawet geeg mbaax gi ndeysaan di nuyu ñi nga àndal ñëpp <laughs> soppe yi jërëjëf jërëjëf ñi ñuy seetaan à travers le monde entier barakala eh, eh, yi ñuy jot daal ah. bugguma tudd benn dëkk ña ca des mere ma <laughs> waaye ku ne ngi woote di wax te yàkkamti nag mardi bi am na sax ñu naan ma bu mu yem ci koor gi rek ma leen bàyyi leen rek ñu ñu <laughs> xool ñu xool <laughs> incha allahu taala ndax fierté ak mbégte buñ ci am. dëgg la dëgg la su ko defee nag kon dañu lay sant di la gërëm ci initiative bi ci yow la jógee jógeewul ci man. dëgg la dëgg la na ñëpp xam ne xalaat bi ci mhm. moom la jógee. lay ndeysaan waaye jógeewul ci man. dëgg la moo ma ne tey ñoo def benn émission boo xam ne. Mhm, mhm. question réponse la ma di la laaj ngay tontu. waaw ma nangu ko. parce que borom xam-xam dañ koy yërëb dañ koy gësam. wallaay kon nag loolu ñëpp a ngi la ciy sant di la gërëm. jërëjëf Serigne beneen bi ci des nag di nuyu suñu kilifaay diine ji bëgg nga nangul ma ko. beaucoup de modestie. wallaay ndeysaan di nuyu suñu kilifay diine ji. Mm. di nuyu kilifay aada yi ji. di nuyu notable yi ci réew mi di nuyu sax ñiñ bokkalul diine. Mm-hmm. teg ko ci loxo sama soppe Abbé Jacques Seck. di sama soppe di sama wëllëre bu baax nag. ndeysaan fu ñu dajee rek dañuy kottante. ndeysaan ndeysaan mu yor mu jottalil ma ko nag ba ci monseigneur Benjamin. archevêque de Dakar. ndeysaan ndeysaan ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jiyaat ñoom ñëpp nag. ndeysaan ci koor gi ñu jeexal ñoom it seen koor jeex na. ndeysaan ñu baax suñ koor jeex incha allah. ndeysaan dëgg la dëgg la xam naa ne àllarba yi suba bi bu delsee. ah, ah li ñuy. ñu jeexalut it dana jeex tàkk. ñu mën a kii. jërëjëf. <laughs> añandoo ñoom jërëjëf Serif maa ngi lay bëggee bu baax itam di la kontaane ci modeste gi ak mbaax gi ndax euh, nuyu gi ngay nuyu suñu mbokk yi yàlla daf ñoo boole lu ñu mënta séddoo mm-hmm. muy njaboot gi ak askan wi ak réew mi mm-hmm. su ngeen de ay nag nit yu diine ak porteur de voix li gën a rafet mooy yor jikkoy pusa di ñëw te moom laa gis ci yow mm-hmm. chaque jour bu ñu toogee bala ñuy génn nga joxe fi leçon bu wane ni yow ki nga bëgg def ko muy sa modèle muy alxaaji Abdou Aziz Dabakh bàyyi woo dara ci moom ndax tey mënoon nga bañ a nuyoo nii nga nuyoo mbaa nga ndokkee la nii nga ndokkee la waaye sa kenn ku ne la nga am moom ngay joxe barke yal na yàlla la ci kanam amiin yàlla may la wér bu loolu weesoo dama gis ngay ree rek looy ree ah waaw mag muy rey yow xam nga ne daa bëgg. Abdou <laughs> xool kanamu ah. kanamu sëriñ dafa bëli tey dama kontaan nag. waaw li may rey daal mooy. moo jógee. maa ngi jógee ci sama installation président de la république. voilà jógee. <laughs> mais. yow xale daaw nañu wax ni booy soo jàppee ko muy jooy. waaw ah. nga bàyyi nag mu dem it. ah déedéet noonu da nga boo ko caawee muy jooy bi pare da nga koy nax. da koy nax daal. Ah, nax daan ko bàyyi ko mu dem. di nuyu suñu bu baax bi lay. Abdoulaye Seck waaw Abdoulaye macha allah. xam ne wax dëgg yàlla jàmbaar la. Mm-hmm, mm-hmm. bu fi kenn newul moom moo fiy des. dëgg la des na boole caméra beeg. Mm-hmm. technique beeg régie beeg yëpp mu boole ko. nekk man nekk technicien nekk monteur nekk ah, lépp. yaatu lool wax yàlla wax dëgg yàlla Euh, ndax ñi ko bokkal lee léeg dañuy dem ci yeneen i service mm-hmm. moom mu des fi ndeysaan kon nag euh, oustaz ndeysaan ree ji daal mooy <laughs> Sénégal am jàmm moo tax may ree wallaay ndeysaan Sénégal am jàmm bu Sénégal amee jàmm rek mm. man maa ree waaye bu Sénégal amul jàmm mm. ah wax dëgg yàlla sama kanam du belli te du ma ndax amuñu fu ëpp Sénégal li ma wax euh, wilaan démb mm-hmm, mm-hmm. oustaz wilaan ndeysaan Wilane TV moo ko moom. Wilane TV maa ngi koy nuyu sax léegi ci yoon bi maa ngi wax ak moom. ndeysaan maa ngi koy gis si seen wéy. tabaarakallaahu mm-hmm. li ma ko wax démb rek. Mm-hmm. ñun amuñu fu dut Sénégal. dëgg la fii la ñu juddoo. Mm-hmm. incha allah buñ dee fii la ñuy suul. wallaay ndeysaan suñu njaboot yëpp fii la ne. parce que lu ñu am ci teraanga fii lañ ko bëgg a consommer. ah bokk koog ñi ñu yàlla booleel mbokk geeg am di jàmm yi. kon nag réew moomu bu baaxee. dëgg-dëgg ñun la baaxal ah, su amee jàmm ñun la ko amal su ko ñàkkee ñun ñoo ko ñàkk dëgg la waaw loolu rek a tax may ree dëgg <laughs> jar jar na ree <laughs> mais noonu noo gisee sànq bi ñu jógee jëm ñaajo ak ni installation bi ñu installé jamaay ah, naka nga naka nga jàngatee nguuru yàlla bi ñu bi fas yeeg motaar yi daree jomaay hmm. jaar eh, place de de de de de Washington hmm. jàkkaarloog pare bi hmm. Eh, jamono boobu loo yëg. waaw wax dëgg yàlla eh, Serigne Cheikh résumé na ko ci woyam. fa ilayka ya ibna Muhammadin. naadaani naadaani hmm, wallaay wax nga dëgg. Hmm? Hmm. wal ba mu ba muy wax wal xóoru. foofu lay waxee. installation présidentielle ni muy demee. boo demee ci alquran yàlla nga koy junjee. ba muy tàgg malaaka yi ne ka annahum bunyaanun marsuus ndeysaan waaw hmm? foofa la dugg foofu la foofa foofa baax ka annahum bunyaanun mu fàttali ma isra wal gis nga yëpp alxuraan wax na ko alxuraan wax na ko te bàyyi wuñ ci xel tubaab loo gis mu def ko rek ndeysaan ñu ngi ko jëlee ci civilisation islam est-ce que fa lañ ko jëlee gis nga bi yonent bi di dem isra wal nii la meloon kii ay malaaka ay nit a ko dal hmm. yonent bi ay malaaka ko daloon parce que hmm? oh. même flèche yi la hmm. même cortège bi la même lëpp la li ñu utee rek mooy kële ay malaayika ko dal kii ay nit a ko dal waaye protocole bi benn la benn la te boo xoolee protocole bi ni muy amee kenn du yàqal morom muñ ci walla mu war a def. amul trespasse. déet. Hmm, policiers yi ñu nga ci lañ war a nekk. Hmm. gendarme yi ñu ngi ci war a lañ war a nekk. Hmm. gendarme yenn yi xam nañ fi ñu war a yem. bu ñu yegsee ba bunt pal ñoom xam nañ fi fii mooy seen limite garde rouge yi jël boo gisee fas yi fu fas yi commencé. waaw ca bit ca ca àll su ko defee nag Colobane rek na fa la waaw fa lañ fa lañ leen di tàggatee di commencé ñu ñu ñëw. Mhm. su ko defee nag loolu li ma ci njëkk a jàngee hmm, lii ko ci jàmgut yàlla dootoo xam yàlla eh, dama koy wax rek ndax nit ñi xam li may wax waaye jubluwuma ci dara. Mhm, mhm, bési weeru koor. ci fukki fan yu njëkk yi lañ ko jàppoon yóbbu ca kaso ba moo ko waxal boppam loo xam ne matu 3 mètres carrés ah hmm. matu ko 3 mètres carrés matu ko mu bokk kook ñetti nit ah bokk kook ñetti nit fa ngay seen toilette fa la nekk fa ñuy jullee fa la nekk fa ñuy lekk fa lañuy la ñuy lekkee mooy seen seen salon à manger. fa la ñuy fanaan. pendant un an. ñu jëlee la foofa tijji la rek nga nga sóobu ci géew bi dem campagne fukki fan ak benn la campagne. tey ah, tey tey tey tey tey. Hmm. ñu ne la la yaay yilif Sénégal yépp lu fi yeewoo yaa ko yilif ku fi yeewoo yaa ko yilif loo signé mu dem loo signé wut du dem loo bëgg mu am loo bëggut du am ña la fotoñoon fotoñ xam nga fotoñ monote waaw yóbbu ñoo lay tóojal allahu xam nga jàngat lay def rek waaw ña la foto fotoñoon fotoñ mhm. yóbbu ñoo lay tóojal ak seeni kilifa benn ñaar si yàlla ku ku ci jàngut yàlla doo xamante yàlla yàlla moom nit yàlla tey waxuma la waaye ki fi jóge muy président Macky Sall mhm. passeport ba mu yor bu jeexee bu ko signé wul du tukki <laughs> yàlla rek ay yàlla rek ay yàlla passeport ba mu yore moom président ndax kuy tukki ak daraja joo mën a am di nga am passeport. di nga am passeport. dara joo joo mën a am nag na ngay même président États-Unis sax dafa am passeport bu ko defu du tukki dañ koy enregistré dégg nga wax mi waaw passeport boobu tey bu jeexoon président Diomaye mii di door a toog bu ko signé du tukki du tukki am na beneen bu na a neex hmm. lii ko président Macron nommé waaw mu war a jëm ci fan yu tuuti pour jël fonction waaw bu Diomaye signé wut du dem du valable <laughs> ilaha illallah la est-ce que booboo gën a garaaw maalikal mulk te du te du mooy kii waaw te du du du palum Sénégal de mais nomination boobu de dafay coordonné ak président wu Sénégal daf ci war a ànd moo daloon président Abdou juuf euh, moo doonoon président Abdou Diouf ak président Abdoulaye Wade. waaw waaw ba mu waree dem euh, francophonie. waaw mu ngoog président Wade wala validé bañ. toog ba mu neex ko nag moo xam ne amalu ko benn njëriñ pour mu bàyyi Abdou Diouf mu dem mu rappelé ko signal ko ne ko ba ba pare jox ko avion ne ko kaay ma yónni la <laughs> jox ko avion président yàlla yàlla yàlla yàlla te ñaata yoon la ko Abdou Diouf tëj kenn xamul tool ci kaso bi ñaata yoon la Abdou Diouf arrêté Abdoulaye Wade di tëj ko ci kaso bi suñ juge yi kenn gënu leen gis nga dossier yooyu boobu Cheikh Tidiane Coulibaly moo fi nekk. Cheikh Tidiane Coulibaly ma xam ko bu baax bàyyam li mu bind yëpp mu ngi ci sama loxo bi naasix wal mansuux bàyyi ma ko taalif xadiisun saxiix bàyyi ma ko taalif xam bu rëy la woon doon sama xariti maam Cheikhu Diouf taalif yooyu matagul ñett weeru koor la woon comme nii bii mooy ñetteelu weeru koor ci laa ko photocopie jox ko Omar Diouf. Fall hmm. mu yóbbul ko Cheikh Tidiane. ndax dégg nga wax bi bu baax man lu ma wax rek dama ko xam man du ma wax lu ma xamul. dëgg seen baay paa Ibrahima Coulibaly. sama kër maam Cheikhou juuf la daan yendu. parce que bu ñëw balaay ñëw day taxan ponkalu sa yi mat ci indiwaale. bu ñëwee bale ba mu set lal deram commencé di bind ñun ñii ku jege fi mu bale dana la duur duur yoo xam ne ba ba ngay dee doo ko <laughs> doo ko dolli. paa Ibrahima Coulibaly bi muy dem Màkka dafa dox aller retour dafa dox. sept ans def na ko ci yoon bi aller retour. nit yu juba fi ne fii Sénégal bu leen kenn diaboliser. yéen diabolise la daa dégg nga wax bi Pa Ibrahima Coulibaly boobu nga xam ne moo leen jur yàlla suturaal ma ma xam leen bu baax a baax a baax dossier bi bu mosaan ñëw ba yegg si ci Abdou Latif Coulibaly eh, astafurlah Cheikh Tidiane Coulibaly hmm. ndax Cheikh mooy magam bu dossier bi yegg ci moom day grâce yi day bàyyi Ablaye Wade mu ñibbi bu Abdou Diouf waxee mën nañ ko gisuma lu mu def moo tax ma relancé ko mu dem ma relancé ko mu dem ñibbi moo loolooy sabab bi bi président Wade nekkee président mille mu jël ko def ko directeur de cabinet moom Cheikh Tidiane Coulibaly bi bi mu demee bi gis ni Abdoulaye Wade di doxale xëy na neexu ko. mu ne ko bàyyi ma ma delluwaat ci sama magistrature man xaw ma lii ci la delluwaat ci magistrature. mu hmm. muy dem di dem di dem ba président Macky nommé ko. procureur de la république mu dem retraite ñu jëlaat ko dugal ko ci biir conseil constitution conseil sept sept sages waaw cinq lañu woon président Macky moo ko def sept ci la ko dugal ci biir conseil constitutionnel moo tax jub rek am solo jub rek moo am solo jub rek moo am solo loolu nag koy yàlla def tey man ci laa doon jàng macha allah nga xool tey installation bi ni mu amee grade yi ñu koy tappal wallaay boo demee yonent bi noonu la ko jël loolu defal allahu akbar ba ca xaaba xawsay ni aw oh, adna fa awxa ila rabbihi ila aw maa awxa xam nga noo koy dégg hmm. mooy bi président Diomaye yegsee ba toog xam nga président yi da koo xaar ci pale bi. ñu ñu décorer ko fële takkal koo légion d'honneur ak yooyu kenn xamul defal ko cérémonie ba pare. lu ko jiitu xam nga président yi dañ wax. waaw. président invité yi war nañu mat sept wala huit président ñëpp a wax loolu mooy yónnant yi doon def di discours. xam nga Isra wal Mi'raj ba mu demee ba baytil maqdis. bu ñu demee baytil maqdis yónnant yëpp a fa daje. di def discours ku def discours jox sa morom ku def discours jox sa morom balaa président Diomaye di di def presserment xam nga président yi ñëw yëpp ku ci nekk def na discours discours teral ko gàttandu ko wax ko ne ko ñu ngi ànd ak yow ñu ngi lay bàyyi xel xam nga yooyu daal protocole ba gis ñëpp gis nañ ko noonu la amee woon ci Isra wal Mi'raj oustaz ca baytil maqdis yonent bi salaay sallam taxaw allahu akbar yonent yëpp taxaw ba maamam Ibrahima moo mujjee def discours allahu akbar est mu door a yéeg nag. asamaan na am naa benn laaj am naa benn laaj bu doon. may ma ma terminer <laughs> maa ngi sof sof ak laaj. aywa gis nga euh, yooyu. nit daf ci war di jàngat. dëgg la dëgg bu mu doon rek cérémonie bu ñuy xool nii. da nga koy delloowaat ci diine. bu mu di doon rek cérémonie bu ñuy xool di di yéemu baax na. ndax allazina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan baax na waaye li muy baax baax na nga delloo ko ci yàlla mm-hmm. delloo ko ci ragal yàlla delloo ko ci pouvoiru yàlla tigi tigi nga xool yonent bi isra wal mi'raj mooy bi jomay déparé jëm pale jëm jam ñaajo oh. jam ñaajo mooy ba bari nag direct nag ci kaw tali bi ah, ku mu romb maa la ko loo ma fa romb nit xam nga yonent bi ba mu déparé màkk jubalewul baytul maqdis de déedéet dafa jaar madinatul munawara la njëkk a jaar jibril ne ko fii ngay mujje fii ngay tëdd barab bii lañ lay rob fii mooy sa barab fii mooy doon sa juma fii mooy fii mooy wan ko barab yépp ne ko nag fii sa woote bi fii lay teeree ñu continuer jaar Barthélemy laa ilaha illallah ca uh, ca Égypte. tuuru Sina. tuuru Sina lañ njëkk jaar sax tuuru Sina. tuuru Sina lañ jaar lañ a jaar. Mhm. mu ne ko Moussa fii la doon wax ak boromam. ce won ko barab ya yëpp ñu continuer dem. baytu laxma baytu laxma mooy Barthélemy bii. koo dégg ñu tuddee bay Barthélemy rek mooy baytu laxma. Mm. fi yonent yàlla Isaa gane àddina. ñu ànd ak moom ba foofu. Jibril ne ko fii la sa mbokk mi. ki nga topp ci moom sës ci moom rëkk te rëkku la hmm. muy Isa ibnu Maryam fii la gane àddina leer yi fi nekk yépp won ko ñu continuer nag door a dem baytil maqdis bi ñu demee baytil maqdis nag fekk na yonent yépp taxaw nañ subhaanalladi asri bi abdihi laylan min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa alladi barak naa xawlahu lu tax li nuriyahu min ayatina lu tax innahu huwa samiul basir yàlla ne ma wan ko lépp kéemtaan yu fa nekk yonenti cent vingt-trois mille yonenti yépp sàppe di ko xaar mu ñëw nekk cent vingt-quatre mille ñëpp di def discours mooy comme président yi doon def discours lay gis naa gars yi Adama Barrow Adama dumb Dumbuya naan Kofi Nana waaw euh, Ghana Ghana Nigéria Dumbuya Guinée ñoom ñëpp ku ci ne jël na kàddu xam nga ak Gazwani ak ñoom ñëpp ku ci na jël na kàddu ñoom noonu la amee woon cérémonie ba ba maam Ibrahima moom mu jël kàddu yonent bi salaay sallam lu maam Ibrahima wax la lañ yaakaar bu sa yalwaan koppoo li ñuy doon doon yonent ñun ñëpp suñu yalwaan koppoo ñaari ràkk yi nga fas yéene jiite ñu mooy ñaari ràkk yuy assuré assuré suñu ko yonent ñun mooy assuré suñu jëf yu baax mm-hmm. mooy assuré na ñun yàlla bëgg na moo leen cautionné yow yaa ñu cautionné bu dul yow duñ jub yaa tax ñu jub te mooy maamam di maam mataaram sax nag oh, bu dul yow duñ jub bu dul yow duñ baax lenge yëpp la yàlla dajale teg ko ci sa loxo dal di ne geesu yonent yi ci des ne leen ko am sët bu mel nii looy wax ñi <laughs> ñii laay wax ñu ne parti mu ne leen waay waay sama sët bii saa yi doom kii ku ko am looy wax suuy doom <laughs> ah? ah wax wax wax tagg yonent bi macha bi nag jël <coughs> sant leen gërëm leen mm. ñaanal leen yàlla assurer leen ne leen du leen war mooy li jomaay def ndeysaan gis nga protocole bi yëpp benn la. tey Diomaye bi président jomaay jëlee lu mu def. ndeysaan waat assuré ne sous-région waxu sax Sénégal waaye sous raison bi. ak pan africain bi yëpp. pan li ko ci war dana ko def. ndeysaan ndeysaan discours bu responsable. doo la jógee foofa. ñëw pale yonent bi jógee foofa. yéeg këli <laughs> mu ngay dem ñu di ko tertu. mu ngay dem asamaanu benn asamaanu ñaar asamaanu ñett. asamaanu ñeent asamaanu juróom juróom benn juróom ñaar mu fekkaat fa maam Ibrahima benn aadama nu mën nañ ko topp ba mu jeex mu demaat fekkaat fa maam Ibrahima alayhi salaatu wa eh, mooy dem ngoon rajo di la pirate. <laughs> mooy dem di la pirate. mu nga ca mu nga ca yoon wa de. yonent bi eh, yëg na na ko Alaaji Mbay doon de Mbay daan waxee. Eh, ah ni su fëgg ba noonu la amee. koo kan la mën a jëf sa riir mi for na koo àndal baaje nga asamaan yi loolu lu mbay doon de wuy boo demee ci muxtaarul ahadis fekk ko fa hadis la bu yonent bi waxal boppam mbay doon def xereñ ba wéy ko mais hadis boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi moo ko nettalil boppam mu ngi ci muxtaarul ahadis ci muxtaarul ahadis nit ñi ñoo dul gëstu boo demee ci muxtaarul ahadis fekk ko fa mbay doon de mbay yal na yàlla dolli rek. amiin amiin euh, amiin te bët bu set ma ñaanal ko. wallaahi ndeysaan. ndax itteem ci diine. Ah, aywa taraxaa yonent yeeg na. ndeysaan. app loo ngay langaan. waaw mooy Jibril. mu tong ca Jibril. mu tong ca ak Jibril. <laughs> Ah? asamaanu juróom-ñaareel. asamaanu juróom fëgg asamaanu benn aadamaa ko teeru. aadamaa ko teeru benneel. Ah? waaw asamaanu ñaar asamaanu ñett asamaanu ñeent asamaanu juróom. Hmm? juróom-benn juróom-benn. mu fekk fa Moussa. ndeysaan. kalimullah. juróom-ñaar mu fekk fa Ibrahima waaw yàlla mi am kàttan ñii jullee ndoor ak moom balaa moo départ fekkat na leen fa nga xam ne innahu ala kulli shay'in qadir suñ borom subhanahu wa taala ba mu demee ba yegsi juróom-ñaareelu asamaan fekk maam Ibrahima aleyhi salaatu mu ngi toog ci lawxul mahfuus wéeru am xale yu nekk ci ronam mm. mu di leen jàngal yonent bi def escale mooy ni Diomaye defee escale ci yoon bi. ndeysaan <laughs> bi def escale ne maam Ibrahima ñii ñan la. ndeysaan xale yu bari yii nga wéeru nii ci lawhul mahfuz di leen jàngal ñooy ñan. mu ne ko ñii ñooy doomi jullit ñi faatu woon te majooruñ yàlla fii la leen affecté ma di leen jàngal alxuraan ba ëllëg ñooy dugg àjjana gàttandu seeni waajur mooy wildaanul muxalladuuna yooyu ngay dégg yonent bi ci gàttal ku ne mu téye boppam ñaan raaye raaye seen bopp yi cautionné leen maam Ibrahima déy ko ne ko boo demee bu ma fàtte yóbbaale ma giiw yow man de ma yóbbante yàgg na fi moo demee yóbbaale ma géew ndax xam naa ne fa nga jëm tànk ma su faa dem ah aywa moom jibril asa li gën a yéeme imaam waaw flèche li ñuy wax flèche. waaw yii cortège dama ko xam cortège ak flèche bokkul. Ah. flèche mooy njëkk a génn. cortège bi a ñëw. Ah, ok mooy mooy. waaw bi njëkk a génn mooy lëf ji génn di di naan nii kilifa gaa ngi ñëw loolu mooy flèche cortège bi door a yegsi. noo jàngate flèche <laughs> moom laa lay wax nii wala ma ci. flèche bi hmm. mooy Jibril. Jibril moo jiitu. te gis nga ni gis nga ni yàlla doxalee. Hmm. jibril alayhi salaatu wasalaam imam fu xel mi yegg jëmm ji yegg fa xam nga xel dafa gaaw waxuma laa xelum malaayika fu xel mi yegg rek jëmm ji yegg na vitesse boobu la jibril di daw beneen bi ci gën a garaaw eh, yàlla lu mu toftal rek li ko toftalee noonu dëgg la dëgg la ah dëgg la dëgg la yónnent bi fu mu war buraax buraax la war buraax fu bët bi tege tànk bi tege waaw li gën a gaaw jiitu <laughs> ak xel la ci topp ci li ci topp tege ci ak bët te moom jibril du ko du ko rëcc fu jëmmi jibril bi nekk rek bu fa bëtam tegee rek tànk bi tege fa ndax dégg nga wax bi bu baax kañ jibril mu ngi ànd ak juróom-ñaar fukki junniy malaayika soixante-dix mille soixante-dix mille malaayika la jibril ànd jiitu buraaq nekk ci digg bi asrafil nekk ci ndeyjoor ak soixante-dix mille malaayika azrail nekk ci càmmoñam ak soixante-dix mille malaayika mikail nekk ci gannaaw ak soixante-dix mille soixante mille malaayika jibril ci kanam mikail ci gannaaw asrafil ndeyjoor azrail càmmoñ ku ci nekk soixante-dix mille malaayika la àndal ñu dar yonent bi sallallahu alayhi biñ demee ba juróom-ñaari asamaan li ma la wax noonu ñu fekk fa maam Ibrahima continuer ba sidratul muntaha oh. biñ demee nag ba sidratul muntaha mm-hmm. indaha jannatul maawa id mm-hmm. oh. yeggee ba sidratul muntaha nag mm-hmm. jibril ne ko pëkk ne ko escorte bi fii la yem mooy palais de la bi ko gars yi bu ñëwee foofu ku ne am na fu mu yem jeex na mu ne ko fii laa yem mu ne ko maa ëpp doole ci malaayka yi maa ci gën a gaaw man la yàlla di yónni ci bépp yónnante bu mu mos a yónni man la ciy yónni amul beneen malaayka bu dem joxe mission ci benn yónnante bu dul man 124000 yi fi dox yépp maa dox seen digganteem ak seen borom maa lay yëgal nag ne pouvoir boobu li muy rëy rey fii la yàlla wax ne naa fi yem su ma ko weesoo dinaa lakk ci leeram yi moom yàlla ni kawar di lakkee ci safara laa ilaha bi ne ko jibril xarit bu mel nii nga am indi ko ci barab bu wéetee nii nar ko fee bàyyi nooy def mu ne ko bàyyiwuma la fi de sa borom laa la fi bàyyee foofu nag la raf-raf yegg si ju ñuy raf-raf beneen beneen jën la. beneen jëmm la beneen fonctionnaire la. beneen fonctionnaire la boo xam ne motariste la bu yàlla yebal. foofu nag gannaaw Seydi Jamil dafa ma waxoon ne bu ma ko wax. ah, ah. Seydi Jamil. ni nee na raf-raf yóbbu ko ci yàlla de nee raf-raf mu ko yóbbu ci benn station diggante raf diggante mu ne ma diggante sidratul muntaha waaw la fi ko raf-raf jëlee. Hmm? ak. arash mu ne diggante boobu rek la fa dox ci kiiraay kenn xamul nu mu toll mu ne fa la raf-raf ak moom mu ne am na jeneen jëmm joo xam ne nag mu ne bu ko mas wax nag ne na ma loolu nag mooy secret yi dëgg dëgg dëgg xam yàlla mooy la ngay Seydi Jamil mii ci Faas waaw yow mu ne loolu mooy dëggi dëggi secret yi xam yàlla mu ne ma diwoo ko fa jëlee nag direct ci borom te wax na la bu baax waaye doo ko wax déedéet du ma ko wax ñu àndal nga daf ma noonu bu ma ko wax <laughs> loolu kay ñëpp topp nañ ma ci ba tàyyi ah, ñëpp topp nañ ma ci ba tàyyi na la ci topp de Jamil mi ah? Seydi Jamil Faas doomu Seydi Aboubacar si bu Seydul Xaaj Maalik kooku lu mu wax dëgg la. kay jaaxle jooju rek turam ismulaayil azam la. Seydi Djamil. jooju moo wax moom Seydi am na xaar ba nga yem foofu. Ah. ma ma lëkkale ak loolu. Ah. bi ñuy campagnal Jomaay ak Sonko. Mhm. dama dégg benn waykat wax naan Jamaal ak Ja Jalaal. Mhm. Jalaal ak Jamaal. Ah. mais loolu dafa mel ni baatin la yow yaa bind wayoo wala. ah déet man bindu ma ko. waaye daal xam naa ne. Ah. ñoom seen diggante. mbóote na de. mbóot mi ci nekk. Hmm. xam nga nag Sénégal dañuy ne eh, léeg-léeg nga dégg ñu na léegi la ci wax man ba ma ci daree wax yàgg na de wax naa ko fii waaw heure yi ma toog ak président Ousmane Sonko. Hmm. mën naa waat ne benn sëriñ toogu kooku moom. heure yi ñu toog muy wax may wax. Hmm. maa moom heure yooyu mën naa waat ci Sénégal ne benn sëriñ toogu kook moom. ah li may waxee kañ may jàll ñëpp a ciy jot. Ah, waaw. Ousmane su ma neexoon tiitaroo ko ca booba. Ousmane dara la de am na xanaa daal waaye soo toogee moom di nga xam ne kii am na lu yàlla def ci moom. su waxee nga dégg di nga xam ne kii am na lu yàlla def ci moom waxuma la nag diine ji ñoom ñëpp nag muy président Ousmane muy président Diomaye muy euh, biram Souley muy Abbas Fall muy El Malick Ndiaye ak ñi nga xam ne tudduma leen ba ci Ka. maa ngi koy nuyuwaale. est-ce que est-ce que. waaw maa ngi koy nuyuwaale bu baax a baax a baax rôle bi mu joué ci biir Pastef néew na ko ko ci joué moom laa mujj recevoir fii mook xalifa xalifa Ababacar Diagne nekk maire bu Dakar ñoom laa mujj recevoir fii. lii boo gisee ma di ko wax nit ñi dañ foog ne man lii xew ci dëkk bi xaw ma ko lii xew ci dëkk bi sama loxo ngi ci biir ma wax ak ma noppi moo ci yem te lii may wax nag lu ko ëpp a ngi ci ma noppi waale ko ndax li ñuy wax secret d'état dafa am. man bokkuma ci état mais secret d'état am. Ah, parce que nag ay nit xam lépp wax te may état laa yor di. Ah, ah. ndax diine ji état la. xam lépp wax li sax baax. xam lépp baax lépp baaxul. su ko defee nag li ñu naan jalaal ak jamaal mën nga ko firee noonu sax ndax complicité bi ñu am ñoom ñaar tey mën nga ne kon jalaal bi secret jalaal bi président koo ko yor fekk secret jamaal bi président Diomaye moo ko yor gis nga jalaali yàlla ëpp naa jege jalaali yàlla ëpp naa jege si jamaaliyaam nag moom dafa lewet xanaa xamoo ne képp kuy ànd ak sa soxna ci sëy ak farata yàlla day présenté wu day ñëw toog di fekkee <laughs> ah waaw loolu ëpp ah waaw déedéet yàlla ci boppam day assisté man yi may wax c'est très grave te alxuraan la na garaaw kay alxuraan a ko wax kon yàlla fekk na lépp lépp la yàlla fekkee moo tax benn waaye dañuy mos di waxtaan mu ne ma shérif man banaa mooy yàlla ma ne ko lu tax <laughs> mu ne ma keroog bi ma waxee ne mooy yàlla yi sax yàlla da koy assister ma ne ko loolu am ni ma ne ko daf koy assister yëpp lay fekkee mu ne ma assister jàmm ma ne ko da koy assister mu ne ma waaye ma del xamal na leen waaw man ma ma indil ko ko te dinaa ko indi léegi ma mu ne ma dama xalaat rek bu ma doon mooy yàlla ba sama papa fekk ma fa nu may def. mu ne waaw ki bind sama papa nag mu ne ci laa bàyyee mooy yàlla. allahu xam nga fu mu nekk. Hmm. mu ci suuratu baqara. waaw. nisaaukum. xarsun hmm. lakum. waaw faatu xarsakum annee shi'tum. wa qaddimu li anfusikum. waaw mooy préliminaire yi. waaw préliminaire bu wa qaddimu li anfusikum. Hmm. waalamu annakum mulaaquuhu kon damir yow miy firi firi ko damir ji fu mu dellu. yàlla yàlla. te bi mu tuddee préliminaire yi ba pare la wax ne maa ngi toog nag bi ngeen di def préliminaire yi di fóonante yëpp maa ngi toog. rabbana wa lakal <laughs> ma yegg ci mu gën a leer. <laughs> <laughs> man li may wax alquran lay wax. Eh, sami allahu liman hamida sami allahu liman hamida kay yàlla di na ko. yàlla ne nisaa ukum hmm. xarsun lakum billaahi alquran bu ñu ko firi woon dëgg dëgg firi ñëpp yenu seen dàll yi daw xam nga lu tax yàlla gis nga ni nga firi nii ni ngay firi nii waaw mooy dëgg dëgg daawa mooy dëgg dëgg daawa sama kàggu yaa ngi nga xam ne sàggan ak ñi rëy sax da nga leen ñi rëy parce que waa ji wax ne dootuma ko def ma ko dimbali ma wax la nisaa ukum hmm. xarsun lakum faatu xarsakum annee shitum wala annaa shitum boo ci wax baax na mm-hmm. Mm-hmm. wa qaddimu li anfusikum mooy mm-hmm. bul fekk sa soxna mu tëdd rek nga plongé nga plongé ci kaw ma sëy ak moom subhanallah na ngeen fóonante na ngeen raayante na def li ngeen soxlaa yëpp ba mu des lu xaraam <laughs> ngeen door a dem ci acte bi dawaloo jàng. dégg nga xam moo tax nag déglul foofu moo gën a garaaw nag ci aaya bi. ma firi ko ñu dégg. dafa ne nisaa ukum seen soxna yi. waaw xarsun lakum ñooy seeni tool. waaw. yow boo amee sa tool di ko visité ji dañ lay wax ne fii ngay jaar wala fa la ngay jaar fu la neex jaar an neextu moo tax mu ne xarsun lakum mu ne faatu na ngeen dikkee xarsakum seen tool yooyu annee naka. Hmm. situm na leen neexee rek. maanaam lu lu sedd sa xol rek lu sedd sa xol rek mu ne waaye wa waxat qaddimu hmm. li anfusikum li anfusikum hmm. na ngeen def plénière yi ba pare door da def acte ndax xam nga lu tax day tax bu doom juddoo am barke hmm. maanaam ñaari xol yu sedd ñu door a sëy day yomb jeex na toppante ba neex daal toppante ba neex bu yaay bu ca doom juddoo rek day am barke day gaaw am barke moo tax mu ne waqaddimu da ngeen jiital li anfusikum seen bopp nag mooy préliminaire yi. Hmm. que. mooy foofu nag mu ne waa waalamu xam leen nag ne na annakum naka yéen ñaari so yow ak soxna si. mulaaqu mulaaquhu di ngeen dajeeg yàlla foofu. yéen a yàllaa ngi toog di assister euh, waaw kañ foofu nag Baye ñas laa dégg ci kasetam. waaw Cheikh al Islam El Hadj laa dégg ci kaset bu mu firi. Hmm. waaw ah, bàyyi bàyyi ponkal la. ni kon kon demee ci da nga ko yóbbu. ci ci foofu. mulaaquuhu yàllaa ko moom. da ko yàllaa ko lu nga yóbbu alaxira. déedéet ji xam nga fu mu amee. Hmm. mooy ngay seeg sa soxna fi muy demee cabinet. yàlla ne nan nga ma ci xool bépp ko def. bu dul foofu rek baax na loo def baax na. tey hmm. mu ne. wóor na la woon na ne di nga man. Hmm. soo ci defee lu jaaduwut di nga dajeeg man. ndax maa ngi toog di assister di filmer fooy rëcce malaaka yaa ngi filmer yàlla ngi seede xam nga lu tax hmm. amul benn doom buy sosu lu dul ci kàttanu borom bi loxol borom bi la koy sose mu laa xuuxu mooy mu laa xuuxu ngeen ma mu yàlla ne di ngeen ma fekk foofu maa ngi toog mu xam leen ne annakum naka yéen mu laa xuuxu da ngeen dajeeg man foofu wa bashiri na nga bégal nag hmm. seetal lu ci lu ci yooni mbégte man mu ne yee sallallahu alayhi wa sallam wa bashiri bégalal al mu'minuuna jullit ñi gëm li nga wax bëgga leen bàyyi ñes cheikh al islam alaaj ibrahima ñes laa dégg ci kasetam mu fi di benn waay posé ko question ne ko hé hay xàkkate ibrahima yàlla na fay teew mu ne ko mu ne yàlla nu muy teewee foofu mu ne ko jamaaliyaam lay teewee ndax bu teewee ak jamaaliyaam dara du ñaawati léppay rafet yàlla bu teewee ak jamaaliyaam lëppay rafet waaye bu dee jalaaliyaam nag kooku kenn àttanu ko moo tax bi muy may yonent bi ci leer yi abaana min nuurihi nuuran innahu wa innahu is araada nashatana abaana min nuurihi nuura nabil alami mm-hmm. leer yépp la yàlla comp ba mu des jalaaliyaam loolu xaju fi. Hmm. kooj na kooj na leer yëpp daal moom la. jalaal benn des mu ne jalaal yaa ku ko jéem a laal. ku ko jéem laal rek moog ahmadiya ñoo yam kenn xamu ci dara. xaqiqatul ahmadiya. xaqiqatul ak jalaaliya bu yàlla ñoo yam. xaqiqatul eh, ahmadiya ak xaqiqatul muhammadiya. muhammadiya ci la lëpp di jox ci la ñëpp di wax. ahmadiya na ku yàlla xataa rasulullahi xamu ko. xatta rasulullahi mi ñu ko denceel jagleel ko ko hmm. xamu ko yàlla da ko koo nëbb xam nga nu mu mel hmm. boo jëlee sa cent million nëbb ko ci sa waxam ne yóbbuwoo ko banque fa nga ko nëbb yaaka na ko xam man ak yàlla xaalis bi dafa xam ne dañ ko nëbb waaye xam na ne xaalis la rek waaye xamuñ xam est-ce que xaalis bi xam na koo ko nëbbal yow ak lu tax nga nëbb ko moo tax yonent bi ahmad sax xamu ci dara ndax yàlla daf ko nëbb ndax moom ëllëg bés penc la koy génne moom suñ borom jox ko ko moo tax mu ne wa rahmati wasiat kulla shay'in ilma oh. wa rahmatullahi kullal xalqi qad wasiat min fajirin wa mutiin saidin bari rahmatullahi الخلق قد وسعت من فاجر ومطيء سائل بارئ ustaasu kese kese de sama jaar foofu waaw jaar foofu de yow doo ustaasu kese kese de gis nga ko de ah maa bëgg ko baax na de ah bëgg woy baax na de noonu la sëñ Abdou Lamine dañuy waxtaan bés ndeysaan ca mbaax nga yooyu waay moo baax ndeysaan mu ne ma kër gi Chérif xam nga ku fi gën a naqari baat ma ne ko mu ne ma maag Cheikh Tidiane bëgg woy te ne bëgg nañ waaye mënuñu mu ne ma maag Serigne Cheikh a fi gën a télé woy mu ne waaye gis nga sëñ Mansour mucc na ci Seydi Jamil mucc na ci mu ne waaye maam Cheikh Tidiane dara lañ ci mënut. sëñ Baye Mansour man sëñ Baye mënuma dégg mooy sëñ Baye moom mënut dara sëñ Baye xalifa bi ko ci wéy moom moom sëñ Al Amin ak Serigne Cheikh dara mënu jéemu ko sax moom da koo jéemu jéemu ko sax moom waaw la. oui nu koy cër la. oui baril xam-xam dalal xoolal seen seen ceex ak xam-xam bi yëpp. moo gën a naqari baat ci li yàlla mën mën rek moo soo ko dégg mooy. sëñ Abdou nee na man daal bu ma yëkkatee mu cóol rek ma toog. ma toog jàpp na ma ma toog jàpp na ma ak buur ba tey waaye suñu. day mingi rek day day mingi rek sëñ Abdou kay mingi loolu la ñuy wax mingi day mingi rek waaye doo dégg mooy. mooy cër la sëñ bi. ndeysaan lii lu ko dàq nag lii ñuy def nii lu ko dàq non loolu dara. lu ko dàq. li ma activé ruux. voilà su ko defee nag. waaw euh, daal imam. ndeysaan. liñ ci mën a jàngee bari na. trop sax xoolal liñ waxagum yëpp. non dañuy décortiquer rek. da ngay li ngay wax ni passation de pouvoir soo gisee soo gisee ma proposé la question réponse bi. Mhm. parce que bu ñëw da nga wax lii doo ko wax. ak ah. yu nëbbu wallaay gis nga. noonu nag bi mu demee ma jeexalee ko foofu bi mu demee nag ba toog ak boromam ba raf-raf yóbbu ko fa mu yem loxol borom bi jëlee ko fa yóbbu fa kaana xaw say boo looy secret ba ba sëy loxo boobu ban loxo la ak nu mu tudd dafa am tur tur wa ci ismulaayil adam la bokk nga ma wax nag di ma ko wax de doo ko direct di ma ko ah, loolu moom yàlla dogal nag bi mu toogee nag fu yooyu la ñuy def contesté baaxut. yàlla moo wax ne fa xaaba fa kaana xaaba xaw say ni aw adna mm-hmm. diggante soo ko bëggee firi. Mm-hmm. bool ne xocc gaa yi xamuñu ko xala xamuñu ko danga naan satala njàppoo gi rek. satala ñépp ko xam <laughs> Sénégal fii ku fi xamul satala amul yàlla ne yonent bi jege na ma ni satala ak njàppoom mën nga leen tàqale lu dox diggante jàpp li ak fi ngay sotti ndox dara doxu fa dara doxu fa mu ne fa aw àddina waaw sax mu gën koo jege wala sax gën na ma jege noonu moom rasulullah aw àddina kon kañ danga naan yàlla wan na ko yonent bi existé tul aw àddina diggante satalaak njàpp mu gën koo jege aw aw walla boog àddina gën na maa jege noonu sax hmm. mu ne fa aw xaa fa immédiatement rek aw xaa ma wax yu maa yama soob yépp ci xeetu xam-xam ma wax yu ilaa abdihi jëme ci sama jaam bi est mu ne la ma gën a neex nag mooy li Jomaay def président Jomaay yépp jàngat la man dama cee jàngat ba nelaw laa la wax mu ne maa zaaxal basaru wa maa taxa complexé wut hmm. moom yonent bi toog bi mu toog ak man yàlla hmm. en tant man mi bind bind complexé wul complexé ci toog ak man te bët bi jengut jëm fen ci man la ko teg lig su ba fa nekk xoolu ko xam nga gan tey boo ko amee sa kër. yow yow yow yaa ngi def analyse <laughs> man boo rek laa doon xool ndax dafa ne naa ni di. waaw di boo amee gan tey bàyyi ko ci sa kër. Hmm. mel ni kuy génn di ko utali dara. boo yéexee boo yegsee di nga ko fekk muy weleex weleex loolu la Saalum Saalum jox weleex weleex. saalum saalum loolu lay wax welex welexi boo moytuwul di nga ko fekk muy welex welexi mu ngay xool fële. sànni bëtam Abdou Aziz mi vrai artiste la quoi. Abdou Aziz waaw gis nga ah non sama technicien bi bokk ci. Ah, kii mooy Abdou Aziz Seck. bokk ci may ko ñaareel. dégg nga wax bi waaw ah, loolu moom bu jëmee ci antenne bi ba jabar ji dégg ko àddina ah, te jabar jaa ngi seetaan de soxna saa ngay seetaan da lay yóbbu àllaaxira léegi mais mais mais Aziz ma Aziz imam Euh, projet Diomaye bi moo moo ko Ousmane moom ñoom Diomaye ngeeg ñaar. waaw Sonko ngeeg ñaar. waaw Birame Souleye. ñett ay ñeme na ko. kon nga xam ne xam naa leen nga xam nga ñëpp laa xam. ndeysaan. Birame Souleye Birame moom moom. ñoo fekk woon fii. dama lay wax ne hmm. fa awxa ila abdihi ma awxa maa zaaxal basaru wa maa taxa allahu akbar yonent bi yàlla ne li ma gën a neex ci sama jaam bi mhm. te yàllaay wax de sama njaam sii li ma gën a neex ci moom mooy bi mu toogee man complexé wul bët bi jengul jëm fenn di xool luñ ko xoolloowul te amul benn complexe ci sama diggante ak moom mu ne ci laa amee sañ-sañ man yàlla nag wax ko li ma ko wax déey ko li ma ko déey oh. ñemeloo ko ne ko acca demal yonent bi salaay sallam wax ne maa ngi ñëw yonent bi salaay sallam bi mu ñëwee bi mu ñëwee ci fajar gi te loolu yëpp mu ngi ci diggante 4 heures du matin ak 5 heures li déroulé nii ma lay wax yëpp diggante 4 heures ak 5 la. allahu akbar de temps la. la durée. Mm, mm, mm, durée bi une de temps la. tey na bi ko yàlla wax yoo ba pare. li indi sax mu xaw a kii tuuti yëpp am na fii de. waaye yëpp am na ci pale bi. dama li xaw a diir xam nga li gën wax loo xam ne nii. waaw ah. yaa ngi koy fiil. ni ko koy use comme ni nga ko waaj wax gis nga bi mu ñëwee nag bay ci yonti yàlla Moussa. Mm-hmm. yonti yàlla Moussa xet gi yonent bi di xeeñ. ak leer gi ko borom bi suur. suur te mm-hmm. amu ko woon ba muy dem. Mm-hmm. mu ciy bànneexu moom yonti yàlla Moussa. mu dox di gudd naan ko na nga def ay <laughs> waay naka borom bi. man de dama ko ñaanoon rek ne ko dama laa bëgg a gis. Mm, mu feeñoo ma as ferñeent rek ma xam. yow dem nga bi ñëw. di mu ne ko ay waay doom ñee naa la. Oh. ay waay waay waay waay am nga lu rëy. ay waay waay yéene naa la ko nag. dama laa ñee rek waaye yéene naa la ko. waaw loo fa jëlee loo fa jëlee. ndeysaan mu ne ko ah eh, Moussa Bari jox na ma ñetti xam-xam. ñaar yi nee na naa ko fésal benn bi maag moom. parce que nee na su ma koy yulli balaa ma koo wax mu écrasé ma boobu maag moom rek moo indi la xataanaa minhu bil watiin ah. yàlla ne ko sooy dox ba wax ko rek ma dagg sa buumu xol bi. walaw taqawwala alaynaa. walaw taqawwala. alaynaa baadal aqaawiil. laqatanaa alayka bil watiin looloo ko waral yàlla ne ko booy changer discours ci. wax leneen lu ma la wax loolu wala nga génnee secret boobu la xataa naa la géñ naa ne xataa naa laa mu xasam la la géñ naa ne xataa naa danaa dagg bil wati ni buum bi téye sa xol bi lay dagg man yàlla ba doo ko fi waxee xam nga kooku du ko ma sa wax <laughs> sëñ bi alxuraan a neex alxuraan lépp a ngi ci ñàkk ko dégg rek ak ñàkk te def te Moussa téye ci loxo bi rek ne ko waaw waaw loolu kon génn naa ci mu ne ko benn bi lan la mu ne ko benn bi chariatul islaamiya la ni àddina di doxee mu ne ko beneen bi lan la mu ne ko beneen bi nag ay secret la nee na ku ma neex naa ko jox ci la yonent bi di joxe ba bés penc léegi mu ngi ciy joxe te du dëñ di ci joxe ba bés penc taxaw <laughs> Oustaz Alioune Mbaye mii da koy neex moom yonent bi mu ne Oustaz Alioune dinaa ko ci jox temps te kenn du ci mën dara mu teg ko ci sa loxo moom la jox Alaaji Malick moom la jox sëñ Touba moom la jox maam Limaamu Laay ci la jox maam Limaamu ci la jox maam Bukunta ci la jox imaam Ghazali ci la jox Cheikh Abdul Qadir Jeylaani ci la jox maam Abdoulaye Niass ci la jox ñépp ñépp ñi ñu yéem ci yàlla yónnant bi ci la leen compal te xaajut te du xaaj comp laa wax de xam nga comp da leen compal rek bu ci ne dalaa compal de waaye mayu comp jox la. ñëpp di yéem nu may def mu compal ma. dina la compal ndax yaa ngi ci yoon bi ku ko bëgg mu compal la. bëgg naa ko de dégg nga wax bi. Mhm. ne ko waaw beneen bi nag mooy lan mu ne ko ak julli waxtu yu juróom mu ne ko ñaata la mu ne ko juróom fukki julli mu ne ko <laughs> boobu la doon xaar. la ilaha illallah dellul. moom baagante bee ko ci neex. waaw muy bànneexu muy bànneexu xet jeeg jëmm ji. xam nga ma ma firee ko ci boy yi am ngel duñ bëgg a tàkkoo. tàkkalikoo moom waaw di tàggoo waxuñu waxuñu <laughs> waaw pour ñu mën a dégg li may wax rek moo tax ma wax li ma. boy yi am ngel surtout ngel bu bees. doo bëgg a tàkkalikoog moom. <laughs> lu ñor nga wax lu ñor nga wax lu ñorul nga wax di di fenn rek nag <laughs> bu dee ci boy yi fenn rek. kàcc rek waaye yoon ci yàlla Moussa nag. lépp ci dëgg la ko def. <laughs> wallaay ndeysaan bu ne ko dellul diis na de man sama xeet wi ñaari julli lañ amoon ñaar suba ak ngoon attanuñ ko lu ne laa ci daan dal. lu ne laa ci daan daj yow mu jox la juróom fukk cinquante foo jëm ak moom. mooy yow. mu dem yàlla wàññi diis. mu ñëwaat mu ñëwaat ne ko dellul benn tey diis na. ay juróom par juróom astafurlah par juróom la yàlla doon wàññi. <laughs> xoolal cinquante muy wàññi par juróom ba mu des juróom kon ñaata yoon la bàggante quarante cinq fois. la ilaha illallah 45 fois la ti bi baa baagante ba ci juróom yi bi ñu ñëwee Moussa ne ko ma ne juróom yi bari na déggoo li ma la wax man sama xeet ñoo ëpp sa xeet kàttan ñoo leen ëpp doole fuuf te <laughs> ñaar lañ amoon mënuñ ko yow juróom yi demal mu wàññi yonent bi ne ko bët bu rusu toj juróom yi mënuma ko wàññilu nag ndax xam naa ne bu ma delloo mu teggi ko waaw par juróom la doon teggi mu ne ko xam naa ne bu may dellu mu teggi ko te am naa kersa boobu yàlla wax yu jibril ne ko wax ko ne ko juróom yooyu multiplier naa ko par dix benn bu ne dix benn bu ne dix muy cinquante prières yépp boo jullee juróom waxtu yi juróom rek am nga cinquante prière yooyu ndax benn bi ne multiplier par dix la dix multiplier par cinq égale cinquante cinquante kii baaxul kii baaxul ci ñun mm, maa ngi ñëw nag pareegu ma ci sa laaj bi kii baaxul ci ñun ak a baax ci ñun juróom yi rek kalaasu Sidi Maxtaar Kunte gi mënuñ ko Sidi Kine barki yonent bi mënu ko balaa koo julli nga jàpp ci bay bëgg a dee waa ah? boo ko fekkee muy julli nag julli mbott sax lay julli boole ci doo xam ne muy julli lan la ah? waaw kon nag kon nga xam ne nag imaam ah. yonent bi ko am yërmande la ci xeet sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla Moussa na ko li ma la doon wax ni yépp yàlla dogal na ko waaye dama ci doon bànneexu de ndax ni nga demee ak ni nga dikkee du benn bi mu demee nag ba ci xadratul ilaahi moom suñ borom ca xadra ba yàlla ne ko yàlla ne yonent bi nuyul waa xadra bi mu ne ko nu may nuyoo mu ne malaaka yi bi nuyul yonent bi wa yonent bi ne pàtt ko nu may nuyoo xadra bi yàlla roof ko jibril fa mu nekk ca sidratul muntaha mu roofaat ko yonent bi bi foofu nee na tiit naa tiit goo xam ne yàlla dafa dalalee sama xel dama jékki-jékki gis jëmm ji niroog Seydina Aboubacar oh, ah mu ne dama jékki-jékki rek gis jëmm ji niroog Seydina Aboubacar ma ne kii de sama soppe bi la ci la xelam dal ndax xadara ba dafa raglu jibril wax ko ko mu ne ataxiyaatu lillaahi moo indi ci julli ci julli azaakiyaatu lillaahi mm, atayibaatu salawaatu lillaahi mm. yàlla assalaamu aleyka ayuha nabi xadara baa ko nuyu mu fay xadara bi laa ilaaha illallaah ataxiyaatu lillaahi azaakiyaatu lillaahi atayibaatu salawaatu lillaahi assalaamu aleyka ayuha nabiyu hmm. bi ko yàlla sayee baat yooyu nag mu mu répété ko atahiyaatu lillaahi zakiyaatu lillaahi atayibaatu salawaatu lillaahi yàlla ne xadara bi dellool leen ma ko nuyoo ñu ne ko asalaamu aleyka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuhu yàlla ne ko may ma ma yóbbaale géewu gaa ma waxoon ne naa leen indaale géew asalaamu aleyna <coughs> wa ala ibadillahi saalihiina ba àddina tukki yonent bi yóbbaale ñëpp géew assalaamu aleyna wa ala ibadillahi saalihin léegi nag looloo projet mooy indi projet bi projet bii hmm. seen diggante ñoom ñaar du loolu nga laaj loolu laa lay laajoon waaye nga ne mooy mooy lan waxal moom kay euh, tontu waaye xam li ma ci laaj bi waaw dama doon tooñ Abdou projet bi na léegi code de la famille bi moom kon léegi daañu ko voté loolu yëpp xam nga projet du benn fan polygame farata waaw léegi nag li ngay wax nii. xam nga yàlla mooy fen fenloo tubaab yi rek tubaab yi moomuñ ñu. léegi mu leer seen bopp yilifuñ ñu. waaw léegi mu leer seen bopp moomuñ suñu réew yi réew suñu réew yi ñoo ko moomal suñu bopp ñoo ko war a lijjantil suñu bopp. Mm-hmm. dëgg dëgg dee dëgg tubaab bi nee na benn jabar lay am. bu ko neexee ñun alxuraan wax na ko amul problème ñun amuñ problème ci am ku am benn jabar non. parce que islam wax na ko fankixu maa taaba lakum min annisaai masna wa sulaasa wa rubaa fa in xiftum allah taadilu fa ci sa benn la yàlla waaye bul ne nag benn bii ci la ñëpp war a yem ba pare boo signé boo boo xasee signé monogamie loolu ci charia boo ko signé sax yoonu islam nekku ci du du ci génn sax waaw loolu ña ko signé seen affaire seen affaire la parce que xam nga lu tax hmm. c'est très bien fait lu yàlla daganalul nga daganal ko mu diis ci sa kaw rek loolu la yàlla daganalu ko yow nga ne dinaa ko signé yàlla diisal ko ci sa kaw ba mu diis balaa nga cee génn di nga daj lu buy di daj ci taal <laughs> parce que yàlla dafa ne déet nga ne waaw. moo tax moo tax déet jooju yàlla wax nga ne waaw na yàlla dina la pini pini yu saf saf. man aar an zikri. fa innahu la fa inna lahu maishatan dankan. wallaahi wallaahi mooy dund ko xat ngay am. dëgg la waaw yow tubaab bi d'accord nañ sa benn jabar. mais fu ñu teg rek ne. ñaari jabar kenn waru ko am. ñetti jabar kenn waru ko am ñeenti jabar kenn waru ko am fu ñu ko teg te ñoom ñuy ami maîtresse. Euh, complexe rek. di ay góor jigéen yu bon. di ay lesbiennes yu bon. nangu nga sa góor jigéen nangu nga sa lesbienne nangu nga sa lu ne waaye nanguwoo ñaari jabar fu mu tege. mais buñ ñu fonto moom moomuñu yow yaa ngi nekk ci sa ngóor jigéen euh, euh, euh, nëbbu ko premier ministre France bi du góor jigéen la wax ko ba ñëpp dégg ko wax faram moom mooy jigéen kële mooy góor faram a nga ca union européenne ah waaw eh, mais lu lii du lu nëbbatu daf ko taxaw wax ko mais gis nga nit ñi foog ñuy wax ak ñoom ah, ah, ñun kenn moomuñu ah, waaw ah, kay mu ngi nii jàmbaar jaa ngi nii. xoolal diineeg jamono. jumaa yaa ngi. aawo bi mooy diine kii mooy jamono. <laughs> diineeg jamono jamono. kii mooy diine kële mooy jamono. xam nga kële kii a ngi muuru tabaarkàlla ba jekk. <laughs> kële nga teg gerefaasam ba langal. ak i weeram ak i weeram. waaw ja kii. moom jomaay rek wane na ne démocrate la. xam nga lu luy wane ne démocrate. bu ko neexoon mu imposer kii ne ko muurul. ñaar rek mooy am mu muuru wala mu mu fase ko. ndeysaan est-ce que. mais da nañ waxante dëgg. su ko neexoon mu imposer kii. Mhm. ne ko muurul. su muuruwul mu fase ko. dëgg la dëgg la dëgg la. mais wu ko ko. da ko bàyyi mu xawee ko taxaw ci wetam. kële muuru ba jekk taxaw ci wetam. ku ci ne yaa ngi ci li war li nga war a nekk te terewu la ko. ndeysaan ah, lii da rafet na. ah te pourtant muuraay mooy farata. ñu ne suñu bàyyi ak sunu maam yi. ah waaw ah? waaw nii jomay def lañ daan def. léegi nag kër fees del waaw léegi nag. Hmm. pareegu ma de. waaw tubaab yi fokk ñu rentré leen bi ñu xam ne parce que ñu ngi commencé naan di Jomaay dina diviser Sénégal parce que ñaari jabar la yor. luy ci seen. ñañ lan moo ñu diviser sax. da déglu ma seen ñañ ñi newu bu yeboo <laughs> xoolal seen ñañ ñi nekku ci laa wax. Jomaay nañu nañu rendi ñu fees ñu nañu tojat nañu saam ñu séddale bëgg nañ. tubaab yi dañu soof dañoo yàgg solo da ngaa solo dañoo yàgg solo nag dañu soof waaye jeex na de mais xam nga comme golo bay baabu dunde jeex na jeex na waaw ah, may ma rek ma yeggal xaaral itam yeggale waaw <laughs> waaw ay ca <laughs> léegi Diomaye ah. mooy euh, président bi gën a nekk ndaw ci Afrique mm-hmm. na nga jàngatee Burkina mm-hmm. Mali mm-hmm. Guinée Conakry Sénégal révolution bi am en tant ay jeunes yoo xamante ne après indépendance la ñu judd à léegi nga gis ñoom ñëpp kenn ku ne yaa ngi am benn programme sa bopp pour mën a mën a samp unité africaine saay saay yi nga xam ne mooy tubaab yi comme ni nga ko waxee léegi bari pexe mën a yàq yàgg noo fénqale ban yan feem nga yaakaar ni xale yi war nañ ci mën génn gis nga incha allah incha allah incha allah allah. Hmm. tubaab yi seen loxo set na ci. suñ sous raison bi Afrique bi kanam jëm de kanam jëm. daa moom daa mel ñàkk ñu bari ci Afrique moom. xam nga lu tax. Hmm. génération bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax ne. Hmm. téeméeri at yu ne. yàlla day jël li woon ci mag ñi def ko ci xale yi jël li woon ci xale yi def ko ci mag ñi fi mu ne xale yee aye Sénégal population bi. quinze pour cent yëpp moyen de quinze ans la. ñoo ñoo voté. beneen bi ci des soixante seize pour cent moyen de quarante ans la moo tax Diomaye ñëw toog soixante seize pour cent mm-hmm. moyen de quarante ans xam nga xam nga fan moo féetee kaw Sénégal. Mm-hmm. RDC bi Congo RDC ñoom ñoo am quatre vingt et un pour cent. population bi ñëpp moyen de quarante ans. Sénégal moo ci topp. moo topp 76. Sénégal di 76 pour cent mooy de quarante ans moo tax président Diomaye topp léegi nag loolu dafa servir leçon boo xoolee président yi ñëw Baro nee na dootul bokk. Baro kay war naa waroon ah, kañ Doumbouya c'est un jeune. mu ngi commencé di régler Guinée. Hmm, gis naa ko léegi muy dénte Diomaye. Goïta mu ngi commencé di régler Mali. Hmm. dañ dem ba xam ne tubaab yi liñ ñuy jaay du dëgg. c'est vrai te mënuñ ñu. su sunu sunu sunu ancien yi sunu ancien yi fi nekkoon. waaw ban dañ dañu amoon complexe. maa ngi euh, complexe bi ñu amoon. Hmm. mooy gëmuñ seen bopp. bi ci des bëgg nguur. ku ci fol daal balaa ñu mbilim lëcc nga dem France. tubaab yi gëmloo leen ne ñoo leen di jàppal seen cummikaay dégg nga wax bi. Hmm. ñoom nag dañ xam dem ba xam ne jeunesse bi dañ dem ba xam ne France yorul cummukaayu kenn. ci seen bopp lañ nekk ci seen bopp rek lañ nekk. ñu dem ba seen bët yi xippeeku nag du dañ doon wax ne xale yi amuñ carte man xale yi daan def mobilisation ñëw fii ne ma suñ carte a ngi nii wax ñu ko ñuy voteel man vote sanction li ma ci def kenn xamul nu mu toll. yow nag Serif yow yow. barke Salatul Fatih. am na association boo xam ne ay jigéen lañ. 400 hmm. femmes lañ. du ma wax fan lañ nekk ñu ngi fii ci biir Ndakaaru 400 femmes. nga leen te ci parti lañ nekkoon. ñu ñëw ne ma ku ñuy voteel ma ne leen sanctionné leen parti bi. dem leen ngeen voteel Diomaye te loolu ñu may seetaan xam nañ li may wax man influenceur la pire bi gën a rëy ci influenceur yi ci kaw ak ci suuf na maa la ko ci asamaan yu juróom-ñaar ak ci suuf si ñu nekk. influ ngandum influenceur la. gars yi xam nañ ko. bari xam nañ ko di. maa lànk moo tax. <laughs> da nga bunt ah, yi yow tam imam dama parce que doy na ça suffit. Ah, dafa doy dafa doy dafa doy ça gis nga nag. Hmm. loolu la jeunesse bi xam. muy fii si Sénégal muy Mali muy Gambie muy Guinée muy Burkina fépp seen jeune dañ jeunesse ba. dañoo dem ba xam ne buumu nooteel dafa war a jeex ñu jeexal ko ci nii wala ci nale ñun nag yàlla suturaal ñu ñu jeexalee ko ci na gën a rafet mm-hmm. gis nga nag mm-hmm. loolu dina yee Dumbuya président Dumbuya dina yee <coughs> président Assimi Goïta dina yee mu euh, euh, ni Ghazami Ghazwani bi dina ko yee dina dina yee Gàmbi dina yee gi eh, Ghana. Ghana sax ñoom dépassé nañ ko. xam nga ko ma jaaxal ah bi Biya. waaw waaw Paul moom moom at mi Diomaye judd. waaw <laughs> Cameroun yi nee nañu. at mi Diomaye judd. ci la nekkoon ci la nekkoon président de la république. def na quarante presque. quarante quatre ans kay quarante quatre ans de pouvoir la def. yooyu dafa ëpp na dëgg-dëgg. su ko defee nag yooyu jeex na. takk gis nga Afrique beneen Afrique lay doon Sidi Lamine Niass waxoon na ko fi nit ñi gëmuñu ko. Hmm, hmm. waaye lépp lu Sidi Lamine Niass waxoon. ñu ngi ciy commencé teg bët. waaw gis-gis. que dafa am gis-gis ba pare doon ba yàlla ndax doomu nitu yàlla la. te foyeewul boppam. waaye gis na Sénégal booy dund fekk yaa ngi wax li ngay wax du am njëriñ. soo demee nag ñu commencé naan la waaye diw ndekete. waxoon na ko Sénégal yéemu rek yéemu. <laughs> du ñu roy mukk yéemu rek rek yéemu rek. su ko defee nag imaam. loolu de lañ ci doon wax. macha allah am na solo. waaw ah. Abdou ma laaj nga may ma rek ma laaj ko benn laaj bala ñoo daaneel. <laughs> léegi nag euh, naka lañ def mën a tabax citoyen parce que tam lii ay citoyen ñoo ko war a gàddu. projet bii ay vrai citoyen ñoo ko war a gàddu. léegi nag nouveau type sénégalais bi nga daan dégg ñu koy wax. Hmm. Euh, donc am nañu nouveau type mooy président bu bees xale la 44 ans. ñi naka lañ ko war a accompagner en tant que citoyen pur nu ñu war a mel. waaw tàmbali na nag. Hmm. te santu leen ko. Hmm. ñëpp ñoo am conscience ne dañ ko war a jàppale jeunesse bi yëpp nag ñu ngi ko commencé ci set setal gisoo dëkk yëpp a ngi set setal est-ce que moo leen ko sant. ñoo ne nañ ko tertoo ville propre. ville propre. Matam ba li nga xam ne dañ leen fa dóor sax. foofu rek lañu leen dóor dóor yu métti ñoom coalition Diomaye mm. ndax ñoom euh, ñële am nañ fa 1000 ñoom ñoom fa xaw ma 34 xaw ma 96 yooyu daal lañ fa xam nga loolu bari na foofu rek la nag yi ci yëpp dañ leen tëcc tëcc tëcc tëcc ba seen yaram yi nooy nepp <laughs> ndax nga wax ni dégg la ah sëriñ yàlla ma bëgg ndeysaan yàlla ma bëgg ndeysaan xalifa Sall <laughs> xam nga tëngeej ndeysaan ñetti maire la fa am maire de la ville taxawu Sénégal la bokk. Ah. bu Tëngéej. kan kan la ci. maire maire maire. Ah, Albert Ndoye wala déedéet déedéet Albert beneen maire bi. Hmm. ñetti maire daal am na ko fa. Ah. xam nga ñaata voie la am Tëngéej. Hmm. ba Tëngéej daj yëpp buntu Tëngéej ba sorti Tëngéej xam nga ñaata voie la fa am cent. cent cent la fa am. sëriñ bàyyi ma waay. waaw barki yonent bi Tëngéej yëpp cent boo boolee li mu fa am yëpp yëpp yëpp cent la kon nga xam ne jeunesse bi dañ pare. yàlla dimbale leen. Euh, Idrissa Seck kooku duma ko tudd man mooy tudd ñi ma ñoom fayda ñi lay tudd <laughs> su ko defee daal tey moom émission. contentement la ak bànneex ngeen baal ñu rek nag. <laughs> waaw tey rek li ñu war yëpp dinañ ko wax. <laughs> waaye incha allah tey tey tey tey sabre victoire. tey damay damay sama sama victoire ci kàttanu yàlla su ko defee nag kon. <laughs> waaw jeunesse bi ñoo am conscience ne dañ koy dimbale. liñ ko njëkk a dimbale. Hmm. mooy nañ def ville propre na dëkk bi set. Hmm. ñu teertoo ko ko. loolu initiative gënu ko. initiative gënu ko rafet na. benn mhm. an nazaafatu min al iman. Mhm, yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne cet ci liimaan la bokk. dëgg la benn ngaw. Mhm. beneen bi ci des. ñu ne buñ déggati kuy saaga. buñ déggati koy nangam nañ nañ jublu ci liggéey. kon xam nañ ni leen di xaar. léegi nag moom sens benn sens a ko dese. man de bu bu ma laajee xalaat. te dinaa ko wax ñi ñi ma ko war a wax. bu mu tëj kenn. allahu bu mu tëj kenn bu mu topp kenn bu mu kenn waaye ku jël suñ xaalis nag waaw na nga ko indi nag hmm, naa ci buñ càmbaree ba xam ne xaalis bii yaa ko jël hmm. na nga indi xaalis bi rek teg bu ca dërëm manqué nag hmm, bu manqué ñu ne la fayal nga jaay say bien fay seen kër yi ñu tabax di ko nëbb ñu jaay yëpp immeuble yi ñu jaay yëpp fay buñ fayee ba pare nga ne ko demal ñibbi waaw jaan kañ boo dindee bëñ ya lu mu des. dara watatu rek la dese mënatul màtt mënul dara. su ko defee tëj bi amul njëriñ. damay wax ne koo tëj. ci ñeenti coin. yaa koy defar promotion sax. du la lijjantil dara. waaw yaa koy defar promotion sax. te lam lam lam dencoon nit du ko génnee mais xupp ko won ko ne ko mën naa la yóbbu ci kaso bi mën naa def leneen mën naa def waaye demal nga indi xaalis dëgg la soo indee xaalis bi ñu bàyyi la nga dem jeex na. beneen bi ci des mooy ñu commencé nag organiser justice bi justice bi bon ak a baax. Eh, waaye ñu seet. waxal ma ci tuuti waxal ma ci tuuti. Ah, justice bi benn justice. gis naa Badio Camara <coughs> Badio Camara daal setu naa ko ci affaire yi. bi ñu demee jëm ñaañu. waaw gis naa taxawaay bu rafet bi mu taxaw. mais bi ñu fa pare dafa jël oto. ñëwaat jiitu si ko fii ci palais bi. waaw accompagné ko ba président Macky la pare. mu àndaat ak moom duggaat ak moom seen naa nag muy wax ak moom di ko joxoñ di ko joxoñ mu wax nañu lu ma presque dix minutes loo jàng xam nga lu tax hmm. ba xam nga cerveau ni mu mel ci bopp waaw Badio Camara cérémonie bii déroulé yëpp du bii dalee ko ca parrainage yi waaw parrainage yi hmm. ba bi ñuy validé ak ya ca xew yëpp benn élection yi ñëwee hmm. xam nga tey résultat yi bu bu conseil constitutionnel waxoon dara rek loolu la ñuy def de bu ñoon jaarut yoon te te fekk dañ koo tey sax ñoom hmm. bëgg a jaxase ne jaarut yoon hmm. dañ koy seetal day gën a tardeel mbir mi ñoom ñooy cerveau ci bopp moo tax moom moomu Dibaajo Kamara liggéey bi yépp moo ko def li ngay gis yëpp yëpp yëpp yëpp démocratie bi ñuy yuuxu tey ñëpp am ndam hmm. ci loxoom la ko yàlla jaarale moom Badio Camara loolu tax nga gis ko jam ñaajo tey institution bi ñuy wax moom moo ko incarné vraiment ñu doon jooy Kéba Mbaye <coughs> ñu doon jooy Kéba ah, Mbaye moo lay won ne ah. fukki Kéba Mbaye ak juróom mu ngi fii ci dëkk bi dañ leen may fuñ exercer seen mbir waaye téeméeri Kéba Mbaye a ngi fi waaw juge Sabasy Faye kañ fële ca Ziguinchor. Ah, Sabasy Faye kooku mooy kooku moo njëkkoon a wax wax. moo njëkk a wax. Ah, mais kii mooy kilifaam. Hmm. daanaka ma ci Ousmane ci Macky Sall. waaw ah. eh, xam nga noonu la deux lay dem. waaw bu ngeen damay dem nangam nangam. noo gisee eh, journée tey bi moom. day sant yàlla. Hmm. Euh, mu nee lay dem ndax bu demutoon le deux it bu bu le deux bi amut moom day dem ñëpp xam nañ konoon président assemblée nationale la fiy bàyyi mooy joxante lenge yi ak Diop président Diomaye te loolu du am xorom. doo doo doo mën a ñëw sax. du neex am na nooy tàggoog nii doo fi mën a teg waaw tàggatoo bu rafet mm-hmm, dafa baax. nii nag xorom la ci benn. Mm-hmm. jox na ko honneur. Mm-hmm. moom peut ñi doon wax grande porte. tey am na grande porte. waaw am na grande porte wax dëgg yàlla. ah. ndax bu dee bu demoon. fekkewul passation de pouvoir bii. Eh, loolu fenêtre la sax lu petit pas dina fa du fi ñëwee ci fenêtre ba lay jaar mm-hmm, mm-hmm. waaye nii mu amee yàlla dogal élection premier tour bu ñu demoon deuxième tour passation bi du ko fi fekk parce que day dem yoonam moom loolu yëpp nag xam nga lu ñu ciy jàngat mm-hmm. man li ma ciy jàngatee ñii toog muy président Diomaye na ci jàngee waxoon nga ma ko suñu émission bi passé ah, kañ mu ne lu la may lu nga ne lu la moon bopp rek gen baa ngay tàggu na la <laughs> tàggu na la gis nga tristesse bi Macky Sall sàll àndal tey. ndeysaan jël caabi pale bi jox ko. Oh. bu symbolique bi. ndeysaan ah. mu di génn ba ci biti moom mu taxaw ci escalier di ko xool. Oh. ba mu dugg ci oto bi ba oto bi départ. Ah, dama jooy sax ndeysaan billaay xam nga lu muy te tey jii pale boobu. mu dëkk fa fukki at ak ñaar. tey balaa fay duggaat gis nga bi mu génnee noonu. Hmm. bu ko boo ñëwee ko waatoon du dugg. bi mu génnee rek bu demoon ba Sandaga ne eh am na lu ma fàtte at du dugg. audience rek. audience fi mu ne nii bu fay duggaat audience lay ñaan <laughs> te occupé nga ko fukki at ak ñaar booy jub rek oto yi bunt yi ubbee ko oto yi dugg ñun ñëpp toojal la nga wàcc jubali tey balaa faa duggaat day ñaan audience. son excellence le gardien de la constitution monsieur Diomaye monsieur Diomaye mu may bu ko mayee ba pare bu wàccee jaar ci escalier yi moromam ya daan jaar ah. mu jaar fa taxaw RTS bii nga xam ne ñoom rek lañ bañoon di filmer ah. bëgg filme bañ filme <laughs> moo tax kuy def defal lu baax lay ndeysaan kuy def defal lu baax tey mu ngi nii par la force danañ ko filmer jërëjëf mu neex mu naqari danañ ah. ko filmer ah par force waaw léegi nag imam la xoolal xoolal tey wax wax naa la ko léegi passeport bi mu yore. bu jeexee sax mënu koo signé. passeport diplomatique bi mu yore. bu jeexee sax moom président Macky Sall mënu koo signé président Diomaye moo koy signé te dina jeex ci diggante bi. xam nga Serif. balaa mandat président Diomaye di jeex. passeport président Macky Sall dina jeex. dina jeex diggante bi xam nga lu may def. Hmm. jox ko motaar rek ñu indi ko bu neexee Diomaye mu signé bu neexee mu ne tegal leen ma ko foofu ba ma xool may def. xam nga xam nga ah, li gën a métti bi. Ah. xam nga bu doon président bu gën a àdduna la sax. waaw ah. xëy na leneen wute na ko. Mm-hmm. mais toog yi fi di dox la nga daan def nit ñi di ko def la nga daan discours nit ñi di ko discours di immigré di génn journal vingt heures keneen di ko def te doon too ci dara. waaw kay moo tax nag lu waay di def na rafet. na rafet rafet. ndax day jeex. Mm-hmm. léppay rafet. léppay lépp nay rafet. day jeex tey président Macky ak Mabor Mack. mbumbaay maag tagg yaag wëy ya tagg yaag dootoo dégg sax ku ko tudd lamtoora burgere jea burgere kañ jeex na buur xetex la ñuy wax léegi kañ xanaa waaye burgere kañ doot léegi kañ buur xetex la wax kenn dootu ko tudd dootoo dégg géwél bu ko woy wax bur burgere su ko defee yooyu nag yooyu jarul acharné wu eh, jarul dara day ndax day génne ci sa loxo te bu génnee ci sa loxo dootoo ci jot Abdou suñu tàggatoo su ko defee nag ah, li ma waxoon démb rek ñi ñi ñamagut nañ muñ de ñamaguñ léegi de ñi ñamagut bu ñeboo ñu muñ de léegi la ñuy ñam de à condition que ñii bañ a def benn faux pas ah, nañu respecté te incha allah man gëm naa ne dinañu respecté li ñu waxante ak Sénégal. sa xaritu candidat yi nag ñi ay un pour cent ñi sept pour cent. waaw man ñoom ñëpp nag bu ku ci nekk sama xarit lañ. waaye baax na ci nag un pour cent yi sax euh, bari na. dañu waroon am zéro virgule zéro xam nga lu tax <laughs> dañu war a organiser waat parti politique yi te ñoom dinañ ko def. ñi am ñu xool naka la ñuy demee. élection ñi projet lañ yor xool ñan ñoo war a postuler comme candidature. xam nga lu tax. Mhm. yow da lay wóor ne fukki nit topp ñu la. Ah. nga bëgg a rey nit ñi ko ko def. Ah, nga bëgg a rey nit ñi ne candidat nga bëgg a nekk. te yow boo demoon ci mairie sa gox goxaan mais waxuma mairie. am na ñoo xam ne man lu ma siiwa di siiwa di siiwa. ma ne mairie arrondissement yi sax munuñ koo gagné. waxuma la maire de la ville. ku ci nekk fa nga dëkkee sa maire de la ville munoo ko gagné. sama sopp nooy bii de. bu ma jeex ah waaw jeex na. moom su ko defee nag yooyu yëpp pour cent. loolu gis nga Amérique li muy rëy rëy rëy rëy. Hmm. ñaata parti ñoo fay dem parti rek ñooy dem. te dañuy def ay primaire. loolu laa doon bëgg a wax préliminaire nga xam primaire yooyu ñuy def xool ko. France bii am nga bon ñoo war a déet. France bii France bii dañuy def ay primaire. wax nañu dëgg am na ko aptul pour doon président la. France gii nga gis nii. Hmm. dañuy def ay primaire pour pour teg la ci bopp bopp parti bi soo ca tegee ñu xool ndax parti bi day dem wala du dem doon lay investir waaye xoolal carte yi ñu leen di defal rek pour ñu voter loolu budget la est-ce que seen 30 millions caution yi fay na loolu sax pour 30 millions ngay wax cap yi ñëwagul tissu yi ñëw encre yi ñëw encre yi ñëw waxuma loolu moom seen investissement la oto yi nag non déglu loolu waxuma ko seen investissement la ñoom ñoo xam xabaa an mansuuran la loolu moom ñoo xam xabaa an mansuuran oh, bon nag waaye man bi <laughs> waaw xabaa an mooy poussière lay doon dinaa li yàlla wax ci alquran alal moom bu dee fa war a dem moom waaw léegi nag man li may wax du loolu mooy seen bulletin de vote yi ñu leen di defaral ñaata lay coûter Sénégal ku ci nekk sa bulletin de vote ñaata lay coûter Sénégal bulletin yaa ngi noonu ñu ñëw ci encre yi ñaata lay coûter Sénégal ah ñun ñu jàll encre yi kees yi na yi ñaata lay coûter Sénégal mais dañ ko war a xoolaat seen trente millions yooyu ñu joxe caution mënula couvrir loolu. man su ma sañoon deux 200 millions lañ koy def cent millions yi ñuy junj nii ne moom lañ ko bëgg a def. Hmm. gars yi mën nañ ko lijjanti man maa la wax loolu nañ ko def 200 millions te ko amul 50 pour cent doo doo doo doo jàll. ñu nangu sa caution. jërëjëf Serif. waaw kay. 50 pour cent sax xëy na bari na ma yërëm leen. 50 waaye 15 pour cent sax. pour cent. Euh, ay ay 20 pour cent mais gis nga yooyu nag imaam bu amul. waaye incha allah. dana dana ñëw maa ko wax de yooyu yëpp day ñëw. sa gars yi bu leen bàyyi nag. non non non pas à pas kilo kenn du leen bàyyi. <laughs> bu yow mi bu leen ba. waaw ñun ñëpp nañ leen jàppate jàppale leen. jeex na ñun ñëpp nañ leen jàppate jàppale leen. sama sama soxna si bëgg a sax fay la sant xam naa du ñàkk lu <laughs> mbokkum jumaay la war a doon. kon nag mbokki jullit yi ngeen baal ñu tey moom. <laughs> tey moom dëgg dëgg waxtaan nañ. waaw waxtaan nañ waaye nag eh, ñun ñëpp dañ doon feetuwaale rek dëgg la suñu victoire bi Sénégal am dëgg la dëgg ndax Sénégal siggiwaat na ci kanamu àdduna. dëgg dëgg nag dëgg. xoolal mhm. booy seetaan télévision yi. àddina bi ay wax ci Sénégal. ci benn réew bu ndaw. bu tuuti mais Badio Camara wax na ko léegi. nee na mu 18 millions de personnes. ay xaritam nañu ko wax ne ko Sénégal moom bu ñu nee ma ne tey këpp rek ñu ngeen àndaat. gis nga ko. loolu sëñ bi ndam loolu. ku koy foyee. ñu sant sant ak suñu mag ñi nag. waaw ah, moom laa wax démb wala Wilane TV. Ah. ma ne leen loolu suñ mag ñi la de. suñu mag ñi yaakaar moo tax nag ku fi toog bëgg a cof suñ mag ñi. daañu rëq sa ndigg bëccëg. yoon yàgg rek. ba dootoo dox. incha allah yàgg kon nag mbokk yi <laughs> jërëjëf maa ngi leen di bàyyeeg oustaz Alioune <laughs> al imam wal muqaddam <laughs> bari na bari na di soppe di xarit di wëllëre. yéen ñi ñu doon seetaan à travers le monde yéen ñëpp. ñu ngi leen di wax. jërë ngeen jëf jazaakumu laahu xayran tey jéggalu nag koo ci xam ne danaan <laughs> Chérif ma boo demee man lay kokkali man kokkali ma ah, leen dañ doon dañ doon bànneexu rek ku neex nga rek maam maam day bànneexu <laughs> li ma mën li ma mooy 30 millions yi noonu def nii man ah. sama daara jee 29 millions moo koy tabax waaw ah. 30 millions yi jël nii da ngay gis kenn mu indil la ko mu indil la ko caution rek bu ko defee. waaw eh? ah, ñuy kon nag yéen ñi nga xam ne yéen joxe woon caution yi dañ waaye delloo wuñ ci kenn nag. ñu leen delloo. ñaar lañ delloo. Hmm, ah borom Amadou Ba. Hmm. ak président Diomaye mi. ñu ngi leen delloo ñi ñàkk nañ. ñi ci des ñëpp ñàkk nañ. 30 millions noonu. ñoom ñëpp ñàkk nañ seen 30 millions. ndax ku amul 5 pour cent duñ la delloo te kenn ci ñoom amul 5 pour cent. alal moom bu demul président Diomaye rek moo bu demul fa mu war a dem. ak président. ak ak eh, Amadou Ba ñoom rek ñoo ci am eh, lopp 5 pour cent. ñi ci des ñëpp amuñ ko ñëpp seen seen 30 millions. yéen ay pour cent mu nga ca keesu état. yàlla yàlla yërëm. in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billahi <laughs> alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Chérif jërëjëf. bu ko waxtaan neex na vraiment am na humour nit ñi reen wax nga xam-xam. te loolu rek mooy diine mm. parce que message yu diine tam du pour safara ak ajjana euh, rek mm. nga fay ko na ngay waxtaane diine ak jamono mm. waxtaane nit ñi eh, yéen ñi xam yéen kilifa diine tam ngeen xam ni ci réew mi ngeen bokk ci askan mi ngeen bokk di waxtaan ak nit ñi euh, ubbi leen seen buntu ubbi seen dënn ba ñu xam ni tam nit ñu réfléchir ngeen te lépp ngi ci alxuraan kon ñu dox leen dig daje incha allah Abdou ñu ngi lay sant di gërëm suñu public bi nga xam te ngi fi woon suñu grand Ablaye Sall bàyyi bàyyi seen bàyyi Jibi Mbaye Aliou Ndiaye ku ñaaw kee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 الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم فعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار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 فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا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 وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما